asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi dal nak jàmm ci seen jiite mbedd mi nawet bi ñu génnoon daal di noonu jur inondation yu bari loolu taxoon ba an initiative yu bari ñu daal di ko fi jël bu fekkee artistes yi seen côté ñu ngi doon way pour dimbali sinistré yi tamit am na ay fondation ak ay organisation yi doon génn di def nu neen ni ñuy mel. mais yow dama bokkoon ci ñi de waaw parce que tamit ñu jël ay nit ay doomu aadama génn leen seen kër yi. bon bañ demee ba si biir li ñu def fi ndaw si li mu def baax na mais nag moom it lan la si gagné parce que gis naa fa ay tubaab parce que man mënuma comprendre tey ñu jël ay nit génn leen seen kër yi dëgg la indi leen la ñuy dundee ay 3 millions 4 millions par jour di lekk yàpp añ reer ndekki ku am doom ñu ngi génte loolu yëpp c'est bien parce que jullit at ku dul jullit yëpp nga fekk nit ku am par ñu am doom ñu ngént la foofu saak ñetti fan ñeent fan ñu togg fa laax ngént la ñu ngoogu mais xam nga loolu léegi nag man ba may def sama enquête si biir foofu ndeke jox nañ leen cinquante mille ba ñu génnee parce que yàlla it ay mbiram kenn xamu ko mu taw bu mu tawee ñoo ñu dellu siwaat ba ñu dellu siwaatee ñuy def ay léegi ñu jékki-jékki rek wane tele ñu ne ñu ngi joxe xaw ma fan ay cent mille cent mille ñoom it ñu seen loxo préfet it ñëw fa ñu joxe cent mille mais si biir cent mille yooyu ñun Sénégal suñu culture sutura la pourquoi pas borom kër bi nekk njabootam ñu jox ko fa benn genre pantre mu ne fa buñ ko dee jox cent mille francs yi pour ñu def ba dugal ko foofu lu tax mun ñu ko fekk si biir néegam bind ko waxtaan ak moom jox ko xaalis sutura mais ñu rang law leen si naaj bu tàng bi xawoo ki bokkoo woo jaxas jaxase xam nga yooyu nga gis mbenn mètre daw fii xam nga moom daal yow sa bopp da nga yaakaar ne sax esclavage moo dellu siwaat si ay ñeenti kilo ceeb xaw ma juróom-ñaari kilo ceeb fii ay bon wu saam yoo kii du ko jot kee jot trente yi. ñu daal ci woon ràññee trop servir le Sénégal bi nga xamante ni nii dafa lëkkaloo woon sax ak ñi nga xam ne ñooy marmite du cœur daal di jëloon sinistre yi yóbbu leen fële ca foire ba. mais xam nga lool tamit bokkul baaxul daal si réew mooy wane ne tey yu mel nii bu amatee parce que nit ñi Sénégal yi léegi dañu yor benn jikko mooy fu ñu seen benn xaalis rek ñëpp daw dugg fa gis nga tey làmb ji koo gis mu ngi entraîné daw di dugg si làmb gis nga ay temps commerce léegi nag après man ba ma defee sama enquête ndeke da ngay gis benn kër kër ga bañ koy ŋaj kër ga si boppam nga gis benn famille boo xam si benn néeg kese kese kese la ñuy bokk ñoom ñëpp yeneen néeg yi tamit mooy loolu mais dañu jéem teg ay projet naan wala daañu defar ay logement fii daañu def lii comme plan jaxaay mais yooyu yëpp fu mu mujjee si gàcc rek lay mujjee te loolu war nañ ko mooy waaw parce man lima ma moy jigen jigéen ñi ne foofu parce que plus de ay kay yu melni il faut ñu def attention parce que xale yu bari meun nañ fa jaaree ëmb. parce que leen léeg gis xali yi ay 16 ans 17 ans 18 ans jaxasoo xali yu góor yi foofu façon jaxasoo bo xamni yow sax bo day xol da ngay tit ah, ah bien sûr. seen nekkin moy buñu ñu dañu ndek dañu daañu añ daañu reer ku am dom ñu ngénte la mais man lima ma gis la ñu yàq buñ ko calculer won lepp pendant trois mois xaalis boobu bu ñu jëloon ñooñu nga xam ne dañu am problème ba ñu indi leen ko man pour man loolu jaru ko woon jaru ko woon mooy nañu xool dëgg la dañ leen abal si ses fooy kii mais pour quoi pas tey bu fekkee ni ñoom war na parce que li ñu naan lu passé passé na mais nañu xool parce que ñun ñëpp ñoo bokk réew mi bu ëllëgee naka la ñu def man pour man tey la war a tàmbali seen liggéey mooy nañ jéem a xool même fekkee ni dañuy xool tabax benn genre immeuble bi daañu jël fin bi par exemple dugal ko si immeuble boobu jox ko fa benn néeg bu baax ak njabootam mais si une semaine une semaine yoy mom naka lañ koy joxé ben moyen wala naka lañ koy raté kërëm wala mom dal bu jugee fofu mom dotul soxlaati ben année. def la liggéey nga wa servir de Sénégal. légui ñom liñ def yoy yépp ak légui ni fiñu tollu ni bo fekkon yow da nga leen doon analyser da nga leen doon may point lan nga leen di may ñom lan lañ def. zéro zéro la leen may. Ah, wa parce que liñ def baxna mais ña fa ne moy gaay yi ñu liggéeyandool. ndol motax ma nit ki bu fekkee da nga yor ben affaire yalla jittal la fa yow sa bop war nga ko ñoy parce que mënuma comprendre bu mu leen di jël leen jëli seen kër yi da daan dem ba ginnaaw leen nemmeeku jël otoom dugg si dëkk bi ñoo ne jëkkëram guddi gi mu dem ginnaaw dem si ndox mi mais ba ñu demee ba leen di génne imaginel génne ba dafa ñaaw dañoo xëy suba jël rajo ba préfet si boppam taxaw jël rajo bi ne génn ñëpp may nañ leen délai te suba xaw ma ginnaaw suba ku nekk na nga génn fi nga ne ñu xëy suba jël gendarme yi teg ko fa mooy ku nekk yaa xam am nga bon wala amoo bon jot nga xaalis wala jotoo xaalis mais samedi kenn du fanaan foofu ñëpp ay génn am na ñoo xam ni bokk jour ba leen génnee am na ñoo xam man gis naa leen fa la ñu fanaan si biti noonu fa ñu def barrière yi si biti ëttu foire fa la ñu fanaan est que loolu rafet na parce que kooku dafa yor bonam génne nañ ko te jotul dara ak ki nga xam ne amul bon xamul fu mu jëm. aw ñu tegaleen ay camion suuf yàlla bi ma tim camion suuf yu mag yi lañ leen doon rokkos lañ leen doon rokkos tamit camion suuf yi ay. lañ leen ay ay téeméeri nit si benn camion téeméeri famille. si benn camion. te bañ leen di jëli dañ leen doon jël ay xas seen oto yooyu di leen si teg leen indi par nànk-nànk mais génn ba ku si nekk ay famille si ay camion suuf yi lañ luye woon di leen si dugal di leen si rokos mais li ma fa gis daal dëgg-dëgg mooy commencement ba baaxoon na mais fin ba yàq nañ ko parce que nit moom bu génn génn leen par fos fu mu amee rek musiba am na